Anyways.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 commissariat bu Pikine di def seen yi nag fekk booba ñoom ñépp ñu ngi siwilu ci lañ leen fa bettee xale yi bi ñu gisee way takk der yi rek ci la ñu fëx coy topp leen ba mujj leen a teg loxo fekkee nañ leen nag ak benn kornetu yamba ak ñaari joint eskay benn tukkatu yamba bi di wuyoo nag ci turu egregetin bi ko police yi dee dàqi la dal di fakkastalu cheville bi damm ku de xanaa dootul rëcc bi mu daanoo ko police yi jàpp bi ñu gisee ne sofi bi dafa damm lañ ko yóbbu hôpital gannaaw ba ñu ko faje ba noppi nag tabax tànk bi ñu ko jël yóbbuwaat ko violon mu fekk yeneen morom yam doon tuxondool yamba ay way xale yi bàyyi leen yamba yamba ji nag ni ko xale yi bëggee jaaxal na nit ñi te it su nekk ma wax ko xale yi xëy di muqi yamba moo leen gënal ganaar gu ñu njoñ te it léegi daanaka koñ boo dem dang fa fekk ay groupe xale toog te seen bëgg-bëgg nag du lenn lu dul dajaloo toog di tux yamba naan nag mooy génération sacrifiée moo tax nag ci li ñu war a taxaw dëgg mooy fexe ba yamba ji xale yi bañati koo gis ndax nag ñi ko fii dugal du ñenn ñu dul dealer yu mag yi te boo seetee duñu subir benn conséquence ñoom daal nañu am seen xaalis li ci des seen yoon nekku ci payamba jeng ndaw ñi ñu dëkkee ko mu xidi katakay te corruption bi nag bokk na li yombal dileer yi seen liggéey ma ne maa la ko wax réew mi xaalis bunt bu nekk la mën a tijji ma ne bu woy takk der yi defoon seen liggéey yamba ji gone yi duñ ci jot xale di tux yamba ci mbedd mi nag daanaka ñu ci bari ay victime lañu te seen place dëgg-dëgg ci centre de désintoxication yi la nekk waaye ni ñu war a jàpp dëgg-dëgg yàpp ci kaso yi du ñenn ñu dul dealer yu mag yi fii dugal yamba i moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw corona la wax xam nga góor gi gën a ñàkk fayda ci àdduna mooy kan mooy góor gu ñàkk classe waaw du ngeen ma laaj kan mooy góor gu ñàkk classe mooy góor gu am jabar ba noppi ne ko fo ñukk topp ci xale yi ndaw yi di raasaatu ñàkk classe gé njaay mi feebar booboo ko jàpp doxaan suba doxaan ngoon ma ne waa ji chaque jour buy xëy otoom xale yi jigéen yi la ci yeb esek mi nag di ab élève waa xëy da koy yóbbaale ci otoom te saa nekk bu jabar ji waxee mu ne ko fiiraangee jàpp ndax moom fi muy jaar ci buntu école ESSEC la foofu la koy wàcce <laughs> ah ndekete yoo sa li muy wax yépp du dëgg tey jël xale bi ci suuf li ko daaneel nag mooy message bu ko xale bu jigéen bi envoyé ci portable am jabar ji yem ko daal koy déglu ba noppi jël message bi envoyé wat ko ci portable am moom jabar ji bi jëkkër ji ñëwee nag mu déglu la ko message bi sa waay nekk fay lakki daada lay wu nekk mu indi ko waaye jabar moom li mu gis mooy message bi mu liir ma ne message u mbëggeel la yëf yi nag coow lu rëy la mu jeejur waa ji jabar gi doon ab gaynde gu tax goo xam ni maara day taali sëkkatal waa ji genre jigéen yooyu nga xam ni dañoo fiira fiira fiir ba duñu lekk fiirir ndax sa waay daa mujjee weeru ni géej jabar ji moom ba coow li dëkkandoo mbokk yi jot ci oh. waa ji fulam jam doon jaay ca koñ baag maanaa jam doon jaay ma lépp la jabar ji màbb weer ko ni géej <laughs> ma ne waay yenn yi baax na ci doxaan rek ma ne nag góor ñi dañoo war a xam ne am na jigéen ñoo xam ne mën nañ muñal lu nekk góor ba des infidélité boo leen koy def ñu lay wan seen jikko ndax seen fiiraange toll na foo xam ni yooyu boo leen ko defee rek faat sax mën nañ la ko def jël sa bakkan <clears throat> ma ne yooyu kaayin ci am bari na lakk taal mbaa ñu sotti la essence ha kaayin ci am bari na jabar ju mel noonu nag góor bu ko amee te xamu ko dëkkee doxaan ma mën na xëy gis buy laa wax te nag lii dëgg sax moy waay waay ku dem nag ba takk jabar walla toog waaye am na góor ñoo xam ni balaa ñoo gën a mën a doxaan rek takk jabar fu ne ñu lambar lambari fa ñàkk classe moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona la wax visile bi nag li mu def doy na war ndax sa waay banque bi mu doon garde caisse de solidarité ba fa nekkoon xaalis bañ fa doon def sa waay saa bu xëyee daf ci doon rocci cinq cent francs nga nimma moom daala bantam la defaroon daa di ciy def ab égi bis bu nekk bu gaa yi liggéeyee ba wàcc mu des fa sa bi ci kees bi daa di dugal bantam càpp cinq cent daal di génne ëskay waa ji dëkke ko def di ko def di ko def ba bës gaa yi kees gi gis ne quatre cent mille francs moo fa nekk te xaalis bi waroon ëpp loolu fuuf ci lañ xamee ne nag am na kuy roñ kees gi aka di bi nag bi ko yoon loxo ba mbir mi yàgg tribunal nangu na ne moo doon jël xaalis bi hmm, bu ko yóbbu teg ko moo moo ko wa yoon nag mujj na ko daan ñaari atu kaso yoo xam ne ñetti weer yi dana ko tëdd loo moomul ba ko fa waa ji nag bi ñu ko laajee nee na li tax mu doon sàcc bis bu nekk téeméer ci kees gi nee na reer la ko doon jëndee ay way ndeysaan ma ne nag kees gi bu nekkee kees de solidarité te waa ji reer dong la ci doon jënd gaa yi nag waroon nañoo dawal solidarité moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona la wax la xew ca grande mos mosquée bu Dakar jéggi na dayoo ñaari ponkalum yàllam góor lañu fa fekk ñu doon sëy wóop pop nga ni ma ne fii laa koy yemale mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje samedi ci yeneenu xibaaru buzz waaye réew mi tas na